Ça va. Nous l'aider à dans l'essentiel du matin. Mhm. Alors, nous sommes mhm. Allô? Oui. Wow. ñuy waxtaane euh, kaw Karim Wade ñu gis ne dañ ko daal di amal benn amande buñ teg ci kawam pour mu mën a bokk ci li nga xamante ni nii mooy candidat yi 2024 yi alors yéen waa PDS bi ngeen yëgee nouvelle bi nan ngeen ko jàngatee. nouvelle bi xanaa dafa nekk lu bees maa ngi leen di nuyu di nuyu Baye Fall. Mhm. Euh, gom parce que bon à travers euh, li sax mooy dugg ci émission parce que. nit ku nekk am na période de vacances période de stand by man nag fan yii dugguma ci benn émission mais moom sama wëllëre la bu yàgg dëkk bi ma nekk Italie laa ko xam wax dëgg yàlla muy liggéey liggéey bu am solo ci wàllum communication maa ngi koy nuyu di ko donc euh, di leen di wax ni bu fekkee loolu lu bees la euh, man mun naa ci wax wante xam nga loolu du lu bees bu fekkee nit ki da nga ko jugé. ni ko amende cent trente quatre milliards la war a fay Sénégal ba mu neex la nga ñëw indi beneen loi euh, wax ni dangay dis da ngay def dissolution wu instance bi nga xamante ni moo ko condamné woon ci mu fay cent trente huit je pense que ah dès l' instant que am na rek ça efface tous les loolu nag xam nga man du ma juriste mais jàpp naa ni euh, koy fay.

la nga xamni mo fa muy euh, jugement valable ngeen ñu li nga euh, procès Karim acté acté ko xam nga duñ fi wax jugement parce que jugement ba parce que c'est réactivé pour en parler comme l'italien hein? c'est réactivé parce que dañ koy activer waat liggéeyaat ko waxaat procès Karim wat donc je ne pense pas que en ce moment mun nañu wax ay ay ñu koy waxee ci ay ay ay ay amende quoi. loolu mhm. moo man la man tun naa ci bañ wax parce que comme man j'ai l'information mooy lu ma lu ma xalaat mooy sama xalaatu bopp mooy lu ñuy réactiver amatul amatul loolu amatu fa quoi lu dëkk lu ñuy xool lu ñuy alors il y a PDS nan ngeen fas yéenee def parce qu'on est à six mois des élections euh, ban alternative rek ngeen di am euh, bu fekkee ni lii piège la pour euh, ngeen bañ a am candidat pour Karim bañ a nekk candidat en fait. bon xam nga ñun moom ñun man xaw ma sax man boobu laaj sax bon je sais pas je suis très professionnel donc am na comment laaj boo xamante ni man daf may jaaxal. Karim bañ a nekk candidat dans quel ci ban base. Karim a été toujours le candidat du Parti démocratique sénégalais dañ ko nous a wax chanté ko dans tous les litois que c'est notre candidat de A jusqu'à Z Et loolu ñu waxoon 2012 ba fii ma c'est ça qui est en ne en pas dire qu'il di wax ay alternative parce que ku koy wax ak ay alternative yow y a di xalaat alternative ñun dañ mës a ni c'est Karim notre candidat Nous, avec ou sans candidat on est Karim et notre candidat ñun nekk ñu fi di wax ay alternative ak ay alternance xam nga loolu moom man dama ci du sax discuter déjà euh, pour wax la tamit gisuma comme nu ma ko waxee woon 2012 lu mën a tere Karim nekk notre candidat gisuma ko donc c'est Karim notre candidat point. mais en 2019 ñu gis ne dañ ko kale woon foofu ndax euh, li nga xamante mooy carte électeur est-ce que jàppoo leen ne bii aussi mën nañ ko kalewaat ci beneen fay su boobaa nan ngeen di def. Karim ne en 2012 biñ ko bi nga jàppee ne dañ ko kale ci carte ci carte électeur. Karim n'est pas resté notre candidat. Il est resté notre candidat. C'est notre candidat. te carte électeur kenn mënu ko ci kale parce que Karim dañ ko dañ ko condamné six ans mu tëdd xaaju pen ak genn wàll trois ans et six mois la tëdd fii ci kaso bii ci rëbës seeti naa ko plusieurs fois man sax ba ma ko seetee maa doon jooy moom mu naan ma pour lan ngay jooy mu am jom lool nangu lool sonn lool toog fii ci kaso bi ci rëbës ñu jël ko extradé ko mu matal cinq ans lu abi wax ni suñ la condamné nga toog cinq nekkuloo ci fichier électoral bu sa cinq ans matee dañ lay delloo ci fichier électoral donc éligibilité Karim hmm, yàgg na nekk en vogue Karim bindu ci na ñëpp gis ko te incha allahu rabbi ñu jaan mattul yoon bi Karim dana jot ci carte électeur am candidat aussi bu soobee yàlla ak yonent bi ak Serigne Bamba mi mu yaakaar ma yaakaar ko ñeneen yaakaar ko Karim dana nekk candidat léegi nag le reste euh, loolu ci ñi ko gëm rek la xam nga ñi ko gëm moom ñi ko gëmul mun nañuy laaj fii nii est-ce dina nekk est-ce que du nekk ñun gëm nañ am nañ yàqin ni Karim mooy candidat te dana nekk candidat loolu rek la. alors laataa ñuy finir rek ma bàyyi la sama naataango bii di Amir Sultan mu posé la benn question Amir. waaw soxna maam Diarra maa ngi lay nuyu. allo soxna maam jaara waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax man la baay Fall sa xarit bi maa ngi lay fay na nga nam la lool di la ziar e, di saluer aussi sa courage ak sa engagement auprès de monsieur Karim Wade loolu moom e, nit lu mu la munti waxal rek mooy bëgg nga ablaay Wade ak njabootam mais ngeen nekk ci terrain politique nga nekk ci sa deuxième législature nga xam texte xam règlement xam lépp xam nga maam jaara pour ne pas éviter le syndrome de 2019 parce que déposer ngeen candidature te moo nekkoon seen plan A plan B plan B mu jëwu leen am candidat loolu di betteel ci ñëpp parti bu mel ni PDS damay dégg chaque jour aussi ngeen di sukkandiku sur la juridiction internationale ne ñoo ne mais pourquoi ne pas s'appesantir sur la juridiction du pays fi nga xam ni fi lañ leen ñu amande leen boo demeen ci article L30 nee na képp koo xam ni amande nañ lu ëpp deux Eh, doo mën a nekk candidat ba gis Ousmane Sonko bi mu génnee ci Adji Sarr sax dañ ne amanduñ ko mais dañ ko kii buñ ko amandoon rek euh, moom il n'est plus euh, éligible donc est-ce que foofu tey nekku leen di commettre même erreur yi ngeen commettre en 2019 sur la candidature de Karim Wade dégguma la de je préfère euh, léegi lu mu wax yow yow yaa ngi ko yaa ngi ko doon dégg ah, waaw dama ne daal Sultan su fekkee mën nga répéter sa question waaw dama ne dama ne nekk dama nekk juste séminaire moom xam na ko non. waaw maam Diarra waxoon ko ko. Mhm. moi je préfère j'ai le temps xam nga euh, <laughs> presque sama temps jeex na damay duggaat séminaire donc moom sax moo tere ma ndékki vraiment parce que dama ko respecté trop sama nit la donc euh, mu baalal ma rek ma dugg parce que après bon beneen yoon ma ma wax ci loolu xaw man parce que dégguma ko quoi.